Aïssatou il faut moi. il faut ñu wax parce que lu ñu bugg lu ñu bugguloon wax fan yee yëpp passé. Ah. parce que ben instant ci biir plateau bi nee naa la Aïssatou wax jotagul. waaw wax nga ko. wax ngi doog a jot. waaw muy lan. moy ba ngeen commencer wax. Mhm. gis nga Amadou. Mhm. c'est il est dangereux pour le Sénégal. non il est dangereux. sa candidat. j'ai dit j'ai dit wax rek te wax rek dangereux. nit la qui commence à commencer commencé ascension administrative et politique Ce qui a commencé au sein de l'Alliance pour la république c'est de créer des doublons des doublures au niveau de chaque département de ce pays mm. pour démanteler l'alliance pour la république nga dem Kolda nga dem Louga nga dem Louga nga dem Louga j'ai dit nga dem Louga ah. Mamour Diallo nga dem Mérina Dakhar Diallo nga dem yenen cadastre la ci même direction bi la hmm. et domaine nga les inspecteurs des domaines ñom la fa mettre en place dem ci département le gouvernement mu assemblée nationale nak assemblée nationale mu tas ko ah, bu ba cabinet du président parce que Macky Sall tam dafa nay. comme ni ñu ne xaalis doxul jàmm. mais nag président aussi. sa président tam déglu rek pour dire ko wax li wax lële. non non non Macky man gisuma ko xëy est-ce que Macky dina am 10 audience. fu mu koy jëlee. parce que man Macky aussi dëgg-dëgg. xam nga war dana daan oo Ablaye wax dana ngi da ngay préparer mais Macky la gis. bu la owé tu prends ton temps. parce que xam nga ne boobu boobu mais est-ce que aussi da ngay ñàkk sa carburant bu est-ce que est-ce que Macky moo nay wala ñu mu koy jox pour ñu jox ko ñeneen ñi ñoo ko dul li ma xam daal mooy li ma li ma xam man. moo tax moo moo tax pour am mais moo tax pour am li li ma xam. moo tax pour am lu terrasse nga gis nga gis ma ma Marème kon du du wax wax ak yow. du na ma. seytaane yi ah, daan na wax ak yow. daan na wax ak man non Marème nag bu amee jigéen a wax ak yow la war a wax. Ah. mooy dëgg. soo xoolee son choix parce que ah. yow yow jour jour buñ koy ci état alors que non non non jour non en mais dans les plus grandes démocraties médias yi nga des médias juste équilibrés hmm. mais di nga nguur opposition hmm. mais pour démocratie dafa li ngay jot ci compte kenn ko parce que dañuy ne démocratie ah, mais des femmes comme Aïssatou nga elle mérite. de mérite. Mm-hmm. et le rôle qu'elle a joué dans ce pays. Mm-hmm. c'est une dame qui mérite d'être soutenue. c'est un combat que tout un chacun doit merci merci parce que parce c'est les hommes d'affaires mhm. qui créent les médias qui mhm. orientent les journalistes le mhm. mooy problème mu mais quand tu prends des journalistes comme Aïssat nga ñëw taxaw mu yor ah. média am war a dem nga soutenir ko mu taxaw mais loolu c'est autre chose. xam nga nag xam nga le problème mooy gars yi dañoo bëgg ku leen di waxal te ñun nag duñu waxal kenn ñun république bi la ñuy waxal république bi lañ fiy toogal nga dem ci choix wu nga dem ci choix wu candidat yi waaw foofu tamit ba ma koy wax président dafa takk masque il a dit à Moustapha Niass yéen a ko tànn waxal. yéen a ah. tànn Amadou Ba. waxal waaw man de mosuma gis mu ko teg. pourtant wax nga dëgg ah c'est vrai de. mosuma gis mu ko teg ba muy génn di def interview. Hmm. il n'a pas cité son nom. mooy keroog ba mu génnee jour boobu. ba mu génnee ñu interviewé ko il n'a pas cité son nom dafa dafa araftu la sax. donc pour te dire que c'est quelqu'un boo xamante ni ak. situation nous nu nous mel nous manœuvrer nous exister. Mhm. ak nous utiliser la structure des impôts et domaines les inspecteurs et domaines sont passés hier dans les impôts et domaines avec la création du PASTEF. nous mhm. nga xam ne nek ci gouvernement bi. nek bras armé bi mo fait fay permanence au PASTEF. kon ku la fay Amadou Ba ah. moo dan ah! fay ba 2014 moo ko fait fay. bi nekkoon Yoff. bi yof bi ah bi ñu yàq noonu. bi ñu tëj Adama bi nga forom. bi am na fi permanence bu ñu tëj. mooy bu ñu tojoon. bi nekkoon ci ci bi Nord Foire. te ñu tëj ko te ñu ko. moo ko daan fay. ci preuve yi. non ko daan fay. waaw dama ne ndax am nga ci preuve yi loolu kañ dama lay laaj rek. citation am nga aussi tamit voilà maanaam. Euh, su la neexee nga dóor ma citation. déedéet non man <laughs> maanaam li ngay wax moom peut-être ña ca nekk moom mu nekk xam nga aussi tamit kuy wax. dama ne li nga xam dama ne du dëgg. mais yow yaa ne. aujourd'hui ñoo ko doon fay. le livre de Madjambal Ndiagne xamloo nañu bari lu bari bari bari sur les membres fondateurs de PASTEF qui sont avec Amadou aujourd'hui une, partie est avec Amadou ah, l'autre est restée là Les membres fondateurs du PASTEF. Les membres fondateurs du PASTEF. Ils sont des membres fondateurs de PASTEF. Maire Khombal bi trésorier bi. Magay Boy faisait partie des gens qui devaient diriger ce parti. waaw wala déet waaw mais loolu trailer. la bàyyi ma terminer rek loolu train la train moom maanaam même waaw loolu train la rek ñii dañuy wàcc ñii dañuy yëg loolu aussi tamit dama laa gëm non dama gëm waaw tu es un militant engagé nangul nañ la conviction waaw dama la koy nangul waaw mais ba ñuy sos parti bi di ko xalaat di ko bind bokkoo ca woon waaw dëgg la une partie dama la ne une partie est avec Amadou te yow da ngay dox guddi waaw une partie est avec Amadou une autre partie est restée mm-hmm. dans le Pastef une autre partie est restée dans le pastif Benen bir. gis nga nag sama copain xamul lu xew j'ai dit la situation de de Amadou ak taxaway bi hmm. le président Maxal, Sall kenn du ko de dire dos hmm. wax nañ ko il devait être défendu par les gens qui sont avec lui hmm waaye eh, kenn ko de. amul amul benn taxawaay neexul dafa ànd nag moom tamit. Hmm. waaw c'est-à-dire non am na ñu mu jox ndomba tànk ci biir gouvernement bi. waaw waaw dafa am ñu mu jox ndomba tànk. loolu question la loolu question la. est-ce que tu comprends. Hmm. aujourd'hui jàpp nañ ni mooy wax nga ko jàpp nañ ni waa ji hmm. ñàkk na affaire bi. pare na ci. fii laa la ko waxee ku am lu muy doxi Sénégal na dem doxi ko. dëgg la ku am lu muy doxi na dem doxi ko parce que yàlla noppeegul.

cour constitutionnelle décision lay mhm. comme tribunal. Ah, conseil constitutionnel avis lay conseil constitutionnel professeur d'histoire mu mhm. ça, effectivement c'est pas des hommes de droit. Je y a un jeune président mu on un change jeune voilà il être jeune et être un sage. un sage voilà le moom. parce que sagesse la sagesse. Madame, sagesse il laaj quoi la sagesse. c'est pas c'est pas ça dépend pas de l'âge. donc faut la donc par rapport à cette situation là. la responsabilité incombe au chef d'État. parce que ce conseil constitutionnel. dugal na ci guuta boo xamante ni. non man nag d' accord ma. xamu tax ma non d' accord ma d' accord ma waaw am nga ci droit. voilà waaw waaw waaw d' accord waaw d' accord. conseil conseil nag xamu tax ma ne dugal nañu ci guuta boo xamante ma kay ñu ci dugal de. waaw waay ma rek kay ñu ci dugal de. en premier. waaye voilà. il est en premier loolu la de la mën a parce que moo leen fal. waay. parce que moi je ba pare may pouvoir. non non non Non, non texte moo may non non non, non. merci beaucoup voilà voilà voilà voilà d'accord c'est ce conseil xam nga tax ñu hmm. c'est ce conseil constitutionnel la ñu wax ni dañ non parce que tu jeexal na. Hmm. ci position finissant. Qui de yi profité jox utiliser parce que xam nga